Boucar ma lay nuyu nga nekk suñu confrère nekk ci Lutte bi tey eh, dégg nga li nga xamante ne soq jot na ko wax mu doon erreur boo xamante ne mën na daal ku nekk ci liggéeyam euh, ban gis-gis nga jàmm. waaw balaa dara dama lay nuyu yow jili di nuyu Cheikh Bass di nuyu mbokk Sénégal rawatina internet yi nga xamante ne ñooy suivre wasaare maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen itam vraiment maanaam yokku ngeen naan ne lamb moom ku yokkul rek da ngaa wàññi tey wasaare bi mu ñëwee ba tey maanaam dafa liggéey dafa nekk loo xamante ni tey dafa doy waar des fois day am imprévu mais tey man nee ñi bokk te ñooy laxasooy goj te maanaam ni ma ko ko waxee rek téléphone waxaat ko ko fii nii maanaam moom buñ ko gëmloo ko ne dafa am noonu ci ci bi parce que presse ko parce que tey lépp fi information si presse la mën a jaar te lépp luy xew wala muy nekk jàmm wala safaan tey si presse la mën a jaar kon maanaam tey bu bu kenn nangu rek ñu lay wutal noonu rawatina nag di ko jaarale wala ñu koy def presse. parce que tey Lutte TV wala ba si wasaare am na site yu bëri yoo xamante ni tey dañuy am page YouTube. mais dañu am site internet boo xamante ni tey dañ fay information am page Facebook di fa information tey nag ñu am koo xamante tey moo nekk suñu rédacteur di bind ay article man mi def daanaa bind article bind article mais tey des fois jël ay article suñu làmb di ko dugalaat tey boo seetloo tey ay article wasaare sax suñu booy bi da koy bind def interview mu seetaan ko jël li li nga ween wax si interview bu mu bind ko article dugal ko waaye bàyyi tey même boo porté woon plainte sax tey ki joxe information joxe source am rek libéré wu na si lu bëree bëri bëri te loolu ñu bëri duñ ko xam moo tax tey bi mu déggantee téléphone dama ko ne bu la nangu nit ñi mettre la en mal ak ñi nga xamante ni tey moo di presse bi te yaakaar tey loolu mënul ñàkk si dundu star tey fake news moom fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi tey nit dina dégg dara du ko leer mu wax te waaye booy bi bi muy bind euh, information bi bind na ko huit heures de temps wala dix heures de temps après li nga xamante mooy que ne site yu bëri jotoon nañ ko dugal te moom dafa tapé recherché gis site yu bëri dugal ko moo tax mu jàpp lu am la moo tax mu dugalaat ko waaw. moom mën nañu daanaka euh, information bi da koo reprendre waaw information bi moom da ko reprendre dugal ko. gaana xëy loolu moo tax xëy information bi demee noonu mais nekk na loo xamante ni du suñu coobare parce que tey yaakaar naa tey ay làmb wala yeneen site journal sax dañuy bind dara ci mbër wala mu bind dara ci làmb loo xamante ni lu ñaaw la sax ñu bañ ko dugal dañuy seeti nit sax mu wax déborder wala mu wax lu jaarul yoon sax bu ñuy monté dañ koy dagg wala nit wax dara sax communication sax man jël naa nit interview mu tëgg làmpam daanu pare bi ñëwul mu wax ma dagg wax wax ju après daf ma woowaat te amaan tey loolu bu ko waxoon tey mënoon na ko mettre en mal ak promote ki mu woon làmp te xamoo ndax tey day ñëw ba si bi am accident xamoo ndax day ñëw ba si bi ñu woo dese kon bul waxee noonu kon dalay tere nga def yéen yi wala nga dund yéen yi. Mhm. maa ngi lay jaajëfal bu baax. maa ngi lay jaajëfal ni tey mën ngay def lu baax lu rafet nit ñi di la bëgg di la kontaane mais